ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf foo dégg gaynde njaay xamal ne mbara wàcc la gaynde sénégal yi ca coupe d'Afrique ba ñuy amal ca Cameroun ñoom la mboolem yéen kay ñu xëy ndool xëy tey ji l'observateur nañu réew maa ngi dund bànneexu football démb la ñu daje ak Burkina Faso ci demi-finale yi dóor ko ñetti bal ci benn jàll final Abdou Diallo moo njëkk a dugal Sénégal Idrissa Gana Gueye ñëw sàppali yëf yi ak beneenu bit Sadio Mané tëj wax ji ak ñetteelu bit journal L'Info nañu Sénégal dem na final Sud Quotidien ak La Sénégal nañu yaa nga ca final ba Libération def nañu ko journal Les Échos feelu leen ba bind ne ñoo nga final record xëy dellu ci match bi woon démb ci diggante gaynde yu Sénégal yeeg étalon yu Burkina Faso yi ba di ñu wax ci xëtamu njëkk ne gaynde yi dañoo wanaasu étalon yi Vox Populi nañu Sénégal dóor na démb Burkina Faso ñetti bal ci benn dem final réew ma toj ba ci buntu palais de la sax démb ci guddi gi yéenekaay bi ne nañu askan waa nga fa woon àndoon ak président Macky Sall doon zibile ak a feetu stade yéenekaay nañu Burkina Faso ki toj max bi moo di Sadio Mané dafa meloon ni jinne ci terrain bi suur soi mel ne ku naan ko bilaay waxati ko moom Sadio Mané gonek bàmbaali gi moo wane yoon wa gaay yi jóg topp ci accélérateur passeur buteur jikkooy ndaanaan gi ñu ko xamee ci réew tubaab yi loole rek la Sadio wane démb entraîneur équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé di wax ci yéenekaay bi ne exemple dëgg leader technique leader social mooy Sadio Mané Aliou ne ci mu ne moom Aliou Cissé su mu bëgg ci max ci Sadio Mané la koy ci soleil national mi ko xëye moom Sadio Mané international ba di ñu wax ne taxawaayu patron dëgg la taxawi démb Sadio en taille patron moom patron bi di Sadio Mané ay kàddoom ñu ngi ci xët mu njukko enquête nee na ñoo ngi final lu baax la waaye gañe coupe moo ñu tax a jóg ndax dem final te gañe woo ko daanaka mook bañ a final ñoo yam ñu yemaat ci xët mu njukko l'observateur gisaat fa beneen xibaar mi ngi jëm ci ndaje mi Macky Sall def démb ak secrétariat exécutif national bu partem bii di APR yéene kaay bi nañu élection locale yi ñu génn ak ni mu tëddee lañ fa doon waxtaane wax na ca moom Macky Sall ba wax gaayam yi ne ñu gën a ëmbal lu ñu woyof rekk doyul Les Échos nañu Macky Sall dajale na ñoñam yi di waa APR ca pale ba dojji leen nee na leen gañe nañu fanweeri département ak juróom-ñett gañe ñeenti téeméeri commune ak fanweeri juróom-ñett ci jamono joo xam ne ñi doon xëccoo ak ñun yëf yi juróom-ñaar fukki commune ak benn rekk la ñu gañe mu ne leen loolee li muy wane moo di amul dara lu ñuy lam-lamee ci suñuy doole politique ci réew mi moom njiit réew mi Vox Populi nee na benn ci weeru sulet 2022 moo di date bi ñu jàpp local yi fi woon coow li pënd bi wuréegul ca Jolof ubbil sursuwa Ousmane Sow Sambere ma gañe mairie bu baxkee ji mook ñi mu àndal yéenekaay bi nee nañu mer nañu lool ci li leen partisan yu Doudou Sow yi di waxal mu di ministre Samba Ndiobène Ka moo ne woon ci ginnaaw Ousmane Sow Sambere doon ko jàppale ba tax mu gañe mairie ba cellule de communication bu Ousmane Sow Sambere weddi nañu ko ba mu set wecc ci jàpp ne seen victoire bi la ñu a salteel mbir mu salte te ñaaw yéeme te doy moo nekk ci xët mu njëkku libération mu di ñaari góor jigéen kenn ki fanweeri at la am ki am fukkeet ak juróom ñaari góor jigéen yooyee la ñu bett ca jàkka ja ca amitié Baobab Karak ñuy warante ak di def yëfi saay-saay journal libération nañu ci jamono ji ñëpp concentré woon ca match Sénégal Burkina Faso bi ci la ñaari góor jigéen yi demee ca biir jàkka ja doon fa siim seen mari ngàññi le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak